ñu ngi ànd ak ki nga xam ne moom moo di moom moo di soxna Betty Madior soxna Betty ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum. maaleykum salaam yaa oustaz maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar sa mboolem invité yi nekk ci plateau bi ñoom itam ziar mbokk téléspectateur du ñu seetaan à travers la télévision Futur Média di leen wax dal leen ak jàmm ci seen yeewu leen plus ñu ak yéen ba 11h. jërëjëf soxna soxna euh, Betty soxna Betty mel ni aljuma bu nekk am na loo ñu tamal di ñu ko indil te lan nga ñu préparal. effectivement aljuma bu jot nag yaaw saas dañu dem seeti ndaw ñi waxtaan ak ñoom ci wàllum diine ji tey nag man bu am solo muy lan la présence des jeunes dans les mosquées gis nañ ni ndaw ñi léegi gën nañu fonk seen diine. Mhm. xaaratuñu aljuma jot pour ñu ñëw ci jàkkee di julli. Mhm. chaque jour dañuy ñëw di julli. boo duggee ci jàkk yi ndaw ñi nga fay fekk programme yi nga xamante ne tamit moom mooy tàkkusaan yeeg conférence yi dañuy gis ne ne ndaw ñi ñoo koy organiser mm. ba tax na def naa ci benn reportage bu ndaw mm. avec la complicité de la régie Apoulaye ndax mun nañ xooli élément bi dikkaat ci plateau bi incha allah apulaay comme ni ko soxna bëti waxee ñu xool euh, euh, élément soxna Betty Madior mm-hmm. incha allah bu ñëwee ubbi tomb waxtaan dal di dellusiwaat ak gan yi ci plateau bi nekk di aaxiri zaman ndaw ñi lu ci bari seen pas-pas ci diine jéggi na dayo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay misaalam da daan wax naan aaxiru zaman lu ne dañ ca xew ba tey bu ñu seetloo conférence yu ci bari ba sax tàkkusaan yi ngay gis ñuy tàntal na bi ndaw ñi ñoo koy jiite xale bu góor bi ma dajal moom li la ci xalaat jeune moom foog nga am diine quoi te diine lu am solo la ci doomu aadama donc bu ñu bu ñu xoolee paay di dem ci jàkka yi dañu dañ waaw di leen bàyyi tamit dem si jàkka yi julli fa moo ëpp solo waa parce que léegi jàkka yi du si ëpp paay ñoo koy feesal nee nañ paay duñu gaaw a dee parce que euh, kiiwuñu si jaaxa yi ñoom ñoo rek ñoo koy feesal donc nekkul vendredi kase dañu war a dem julli ji dañoo war a dem ci jaaxa yi parce que moo ëpp tiyaaba quoi. waajur bu góor bii ma dajal moom di ma xamal ni ñoom am nañ ci part de responsabilité bu mag ndax bu keroogee yàmm xiyam yàlla dina la laaj naka nga sàmmee woon sa njaboot. bu fekkee ne xale yi waajaluñ leen ñu jël seen relevé ni ñu ko war a bu jëlee bu ëllëgee bu ñu nekkee mag euh, li nga xam ne mooy seen taxawaay dana manqué. Eh, dafay fekk nag xale yi eh, dañ leen te sa eh, préparé waaye ku ci prépare say doom ah, bu ëllëgee relevé ba dana rafet ndaxte bu fekkee ne baay bi li nga xam ne moo ko war ci doomam def na ko xamal na ko diine jàngal na ko di waxtaan ak moom bam am aqida bu dëgër ci diggante bi ak boromam xale boobu lu mu nekk nekk xale dana bàyyee xel digganteem ak boromam dana bàyyee xel digganteem ak islaam yoonante bi moo ko wax nee na képp ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk lañ ko sàmmloon bu ëllëgee yàlla dina ko ko laaj ba tax na ku ci am sa njaboot del waxtaan ak moom ci wàllu diine te da ko xamal itam lan mooy jom. mën di dox ndaw ñi di wàññeeku waaye li ma leen di ñaax mooy rek ñu gën a fonk seen diine ndax diine moo njëkk te moo mujj. li may wax rek yi moytu parce que instant yi zaman bi li mu toll doy na waar ci internet yi. wala si Facebook bi dafa dafa kii dafa doy waar daal xale yi ne moytu topp xadis yeneen yi ak jàng alquran loolu moo gën a baax jërëjëf Adja Betty reportage bi am na solo man nag dama yaakaaroon ne ndaw ñi dañ dañ dañ wan gannaaw jàkk yi ndekete léegi dañuy daw jublu si jàkka ji waaw yaa oustaz effectivement mu muy mel ni ne ndaw ñi ñu ngi jub si jublu ci li nga xamante ne moom mooy jàkk yi mhm. man la preuve tey damay gis ay ndaw yu bëri dañ may interpellé ci ay programme yoo xamante ne yoo xam ne ñoom ñoo koy taxawal mhm. ay ndaw yoo xamante ne da ngay gis ci Facebook sax la ñuy xamante mhm. daal di ubbi benn association bu mag à travers Facebook daal di def seen ay programme te programme yi dafay réussir macha allah ay jeunes ñoom ñoo koy def mu mel ni ndaw ñi lu ñu naan la présence des jeunes dans les mosquées mm. am na bu baax réalité la fii si fii ci Sénégal boo demee ci jàkkee ndaw ñi xaaratuñu àjjuma jot mm. pour ñu ñëw di julli si mm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax naan atum zaman lu ne dana ci xew euh, parents a ñaax surtout ndax sa doom boo ko defe naa ni boo ko yaree nga jur ko ci farata yàlla sunna su Muhammad war nga ko woo di ko yedd waxtu bu julli bu jotee nga ne ko kaay nga julli ñii la ñuy jàppee ñii la ñuy sangoo set da gis ay mag yoo xamante tey ji sangu set te ay ndaw xale yi ndaw mun nañ leen jàngal ñii la ñuy jàppee wala nii la ñuy sangoo set mhm. parents yi tamit ñoom am nañ ci part de responsabilité mhm. ñu gën a ñaax xale yi ci diine ji yaa oustaz jërëjëf Adja bi tey mu mel ni dafa da wax rek la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne mhm. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi képp kenn yàlla dana la laaj la mu la jénkoon si njaboot ban anam nga leen yare maanaam naka nga leen sàmme woon kon loolu mën nañ wax ne lu ñëw si waxtoom la parce que tamit jeune mënoo nekk jullit am lu ëpp si sa àdduna jaamu yàlla te jaamu yàlla kenn mënu si am lu ëpp li nga xamante ni moom moo di julli mm-hmm. ndax yonent sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal ne ëllëg yawmal qiyaam li ñuy njëkk a xoolal jaam bi moom mooy julleem mm-hmm. bu fekkente ne baax na mm-hmm. mbooleem jëfam yëpp fa tabaarakallahu day daal day yëwén daal day baax bu fekkente ne baaxul itam léppam day daal day yàqu boobu euh, soxna Betty moom mooy base bi daal. dëgg la moom mooy base bi naan ma julli moom mooy carte nit ki mu ne keroog yàmma mooy doon sa carte mhm. balaa ñoo xool lenn julli la ñuy njëkk xool bu julli baaxee rek lépp baax na mhm. tabaarakallaa oustaz loolu laa la addiloon tey jërëjëf soxna Betty Madior kon xam naa ba si kanam insha allah ñu ñëwaat ak yow àndaat ak yow si yeneen éléments yi yaakaar na xijaab de la xijaab la semaine la semaine des